gannaaw bañ sante yàlla julli ci yonent bi je pense que ñu ci cinq ans yoo xam ne nii à chaque fois ba ñu koy yàlla di mënloo maanaam dinañ jël li ñu am ñu ñëw bokk ko ak waa Kaolack ndax ñun du ñu ay directeur du ñu ay ministre du ñu maanaam amuñu benn ndomba tànk ci réew mi Masamba joxuñu ma Demba joxuñu ñun lépp lu ñu am ñun maanaam ñun ñoo koy liggéey fighting ko Ndakaaru ba am ko ñëw war koo séddaloog suñu mbokk moo tax à chaque fois chaque année. lépp loo xam ne nii xew na Kaolack muy gàmm muy tabaski muy korité ak lépp loo xam ne ni maanaam waa Kaolack ñu ngi ciy dox maanaam loo xam ne ni maanaam seen loxo jotul seen gannaaw ñun dañuy jël taxaw ñun ba ñun fa leen ñun Dakar lañ leen nekkal pour di xeex pour ñu lépp lu ñu am Dakar ñëw séddoo ko ñëw. bon tey li ñu joxe dañoo def par comité lañ joxe comité bu nekk yóbbu nañ la une tonne euh, soble une tonne euh, pomme de terre ko nag ngir politique.

parce que tey lii maanaam lépp ba demee ci yeneen régions yi luy waa di def dàquñu ko bu dee fit ëpp ñu ko bu dee fulla ëpp ñu ko bu dee jomit ëpp ñu ko donc nag ñun loolu moo tax ñun maanaam gor googu ñu am loolu moo tax lépp lu ñu am tamit maanaam dañ koy delloowaat Kaolack tey nag comité bu nekk jox nañ la une tonne soble une tonne pomme de terre aussi tamit boole ci enveloppe aussi pour di ko jox kër gu nekk bu fu ñu dugg dañ la jox enveloppe maanaam pour ak diwlin pour appuyer la ko parce que neexul tey dëkk bi neexul kenn ku si nekk maanaam Eh, amu fi ay gor ñofi fi kenn du dem ci kenn pour di ñaan waaye nag ñun ñun doomu gox bi lañ buñ ko defé dañ ko wara def buñ ko deful dañ ko wara def ndax mu yore suñu million tok ndakaaru diko lek ñun duñu ay gor kon ay jam lañ donc nak lepp luñu am rek dañ koy ñew bokk ak waa Saloum parce que lolu moy li war ndax gor gu nek gor nga ndax aussi tamit manam ma leen di lancer un appel aussi tamit suñu autorité yi nga xamna ñoo kaw nak des soi-disant des manam des soi-disant soi-disant ay autorité lépp lu ñuy def Kaolack intérêt lañ ci lal ma ma maanaam balaa ñuy def dara intérêt lañ ciy teg ba pare donc nag ñu ngi jëm ci ay élection élection yu ñu jëm nag ñun jeunesse bi dañoo takku ba dëgër maa ngi lay waatal ne billahi wala taala suñu bakkan lañ ciy teg ci élection yu ñu jëm xam nga moo tax ñuy teg suñu suñu bakkan ndax ay samba àllar lañ ma je vois des autorités yoo xam ne nii tey xoolal Kaolack ni mel tey ba ma duggee fii ci biir dëkk bi xoolal li fiy ndox mais loolu nag dinañ ko xeex ba ba ñuy dee dañ koy xeex pour que fii képp kuñ fi dénk maanaam képp kuñ fi dénk mairie nga jàpp ne maanaam dañ lay dañ lay bàyyi noonu barke alxuraan ngay nax sa bopp ku fi dégg mérite maanaam lépp loo ci def danañ la xool ci zaahir ak ci baatin ndax ragaluñu xam nañ fu ñu jëm kenn du lekk xaalisu Kaolack bi nii ndax suñu yaay ak suñu papa yi dañoo sonn suñu rakk yi itam dañoo sonn nañ dimbali suñu rakk yi dimbali suñu nit ñi parce ñu bàyyi seen caaxaan yi ñi ànd ak président Macky Sall tamit nañ bàyyi seen caaxaan yi ñu nekkee dimbale nit ñi balaa ñuy dimbale nit ñi rek ñu balaa ñuy dimbale ni ñi ñu am ci nit ñi intérêt nañ bàyyi seen yi ñu nekkee xoolal tey ba ma jo HLM Sara laa tout à l'heure xoolal HLM Sara na am na ay autorités mais nañ waxante dëgg xoolal HLM Sara maanaam ni mu on a que des samba àllar de ce pays samba àllar lañ am fii Kaolack donc nag ñun taxaw nañ pour xeex lépp tamit maanaam daw ñu saala yaay ndeer dinañ xeex ba maanaam ba ñuy jël suñu bakkan fii Kaolack ndax waaw non HLM soit dina am nañ ay autorité foofu noonu mais xoolal HLM Sara y a amul dara maanaam ndox mi dafa boo demee passeport tamit nit ñee ngi sonn boo ñëwee tabangoy fi tamit nit ñee ngi sonn donc nañ génne seen yi ñu nekkee ñu dimbali nit ñi te tax te ñu nag ñuy dem ci élection élection yi ñu jëm maa ngi ñaan jeunesse bi maanaam nañ xool ki ñu gënal man maanaam koo xam ne dinañu taxaw ci hémicycle bi ñu votal ko ndax ñii ma gis ne ay Balde Bouré ay xaju parti lañ gëmuñ Macky Sall duñ dara